jóge ci tabaski bi ginnaaw loolu le kii di uh, Bougane Gueye Dany am kàddu yu mu yëkkati uh, daal di sànni uh, carte nee na nag waxut ak kenn dafa sànni li nga xamante ne moom mooy lettre bi mu bind ni ko dafa yëkkati discours yëkk dem ba ci biir daal di ne man sàcc moo ma gënal ki nga xamante ne moom mooy kiy wax lu dul dëgg ba justice ci boppam ràññee ni li muy wax du dëgg te du kuy wax dëgg donc kàddu yooyu ñu jël ko daal di koy moomale suñu premier ministre ñu gis ku ci nekk daal ci yeey di yàbbi mu jur benn polémique boo xamante ne euh, li jaaxal sénégalais yi nag mooy que Bougane tuddul tur kenn donc lu waral wax ji. waaw Bougane xam nga doomu sénégalais la doomu réew mi la am na droit wax ci réew mi te moom am na droit wax ak ku ko neex mais tuddul tur ñu bëgg a jël wax ji moomale ko comme kooku ko moomale na ko nangu rek yaakaar naa ne Bougane tey doomu dëkk bi la am na droit wax gis xalaatam wax si tey fen baaxul. tey boo xoolee Ousmane sonk dañ ko yàgg yóbbu vaar dafa wax a wax a wax yoo xam ne kenn xamul mm-hmm. wax dëgg ba ñàkk moo gën nga wax fen ba am mais buggaan lu mu wax ayul tuddul turu kenn mais bu fekkee moo jël wax ji moomale ko boppam amul problème na ko jël loolu kese la. est-ce que kàddu yi kàddu kilifa la. mais kàddu yi dara nekkul loo xam ne lu ñàkk respect la de. dana ko fen baaxul te kenn ku ne xam nañ fen baaxul fen moo gën a araam yal nañu yàlla musal si fen te nit danga war di wax dëgg mais koo xam ne chaque jour ñu indi la say vaar loolu dafa ragal loolu day tax nit ñi dañ lay ragal rek. Hmm. Mhm. d'accord mhm. euh, nga siggi tuuti xool caméra bi. Mhm. dégg voilà voilà wala ngaa ragal. <laughs> déedéet ragaluma ragal lan. <laughs> donc da bàyyi xel tout le temps caméra bi mhm. euh, euh, loolu am na ñu ci justifié indi ci réponse daldi di ne kii di bu fekkee ni le procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko moo waral Bougane yëkkati kàddu yooyu xamal ni justice dafa ràññee ni Ousmane sonk lu mu doon wax du dëgg dëgg la ndax rapport am na te rapport mu ngi ci table Ousmane sonk donc Ousmane Sonko moomul wax ci. non Ousmane Sonko xam nga moom moom dafa mën a sos yàlla na ma yàlla jégal dafa mën a sos dafa mën a yàq Alioune Sall amul luñ ko fi waxul waaw amul lu luñ ko sosalul fii lu ne lañ ko sosal kon Mame Boye Diao kooku tam buñ ko sosalee man damay jàpp ne Ousmane Sonko daal moom mooy teg ay plan boppam moom politique bi mu yore politique bu salte la boo xam ne moom ba mu dalee wax ba léegi mosul wax dëgg mais li muy wax moom tegul lenn lu leer si table bi yow li muy wax naan gars yi dañoo sàcc ay milliards moom na teg preuve ñu dégg mais tegul benn preuve boo xam ne tey leer na si nopp sénégalais yi lu dul di sos di yàq gor ñi di tuumal nit mais nit ku wax rek mu jël wax ji moomale ko boppam kii nattu la de si dëkk bi de. kan mooy Ousmane Sonko moo ñu gën a sonal moom moo fi def lu kenn deful. àdduna yëpp la yàq Sonko nekk fi liggéeyu fi dara Sonko lu mu waroon liggéey yëpp dem na ko var ak wax ju bëri lan la apporter Sénégal Sonko. ça bu Diomaye taxee Sonko taxaw sa mëno xamé kan moy président Sénégal. waaw. Hmm. Mhm. mais ñoom ñaar bokkuñu. Sénégalais yi xam nañ kuy Diomaye xam nañ Ousmane Sonko. déggoo la kii ab la jomay ab la président ñun. la. Mhm, la Ousmane Sonko mo koy diriger. mo koy diriger lu graw la lay wax ni jomay la Ousmane Sonko mo naan ko defal di bayil ça. te Sénégal benn président moo fi am muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais Ousmane Sonko dafa war a yem rôle ministre mais moom day wax fii waxaat fee moo tax chaque jour ñu ko indil ay vidéo am ko tegal. Mhm. Mm. gisoo vaar baa noonu chaque jour ñu yóbbu ko vaar man tuddee tuma ko Ousmane de Ousou Vaal vaar laa ko tuddee. Ousou mhm. mm. Vaar waaw. waaw dafa bëri trop li mu wax ak li ñu koy yóbbu dafa bëri. gis nga nit boo jiitee. nga am foo xam ne yow jën nga président dafay am nooy taxawee mais ay tapis bi rouge ak nit ñi ñi nga xam ne yéene wuñ ma ko dinaa si dox di si def lu ma neex ñun loolu mooy yoon si tapis rouge ñun dañoo bëgg nga tegal ñu taabal bu leer nañ liggéey génn yow danga ne système nga indi système boobu lañ lay xaaree mais du ay tapis rouge. Hmm. Hmm. Ousmane sonk mooy loolu daal. Hmm. déedéet Ousmane Sonko Ousmane Sonko day xaar tey Macky Sall boo xoolee président Macky Sall lu mu fi liggéey ak coono gi mu fi daj Sénégal mhm. Ousmane sonk mënu ko dékku kii pré kii la ministre defante la day defante. Mhm. te Sénégal tollul foofu Sénégal liggéey lañ woote. Mhm. comme moo wax ne livre système bi moom lañ koy xaare système boobu lañ lay xaaree Ousmane. moom day système déedéet système bi ba léegi ñëwagul. ndax nee na réew kenn du ko kenn du ko defaree ci un mois kenn du ko defaree ci benn mandat moom moo ko wax. Mhm. te nee na bu ñu ko joxee Sénégal mu changé Sénégal. wax na fi waxaat chaque jour ñu yóbbu ko mais est-ce parce que quoi qu'on puisse dire Ousmane waatugul Ousmane solul càkk bi Jomaay moo ko sol te moom ministre la à tout Jomaay mën na ko radier mën na ko génnee du poste du premier mais lan lañ wax dañ ne mooy Jomaay Jomaay mooy Ousmane Sonko mais loolu xam nga ne c'est une langage courante quand si fanaan si kii c'est normal nak kan tay ñu né Ousmane Sonko mom moko ko mo doon campagne gëm lool lool askan bi man mom sàndalu ma ko carte té ñu mel ni man bëgg réew mi sàndaluñ ko waaw mais mom mo wax waxat légui nak ndaw ñuko ko votel ñu ngi doxal bu xol yalla na yalla def réew mi jamm rek. amen waaw ni ma gis mom Sénégal mom doyna war mhm, ndax tabaski mi Sénégal ren musta melni donc bokk nga si ñi nga xam ne ginnaaw bi euh, Bougane yëkkatee kàddu yi sa xel ci ci ci moom la dem directement. waaw Bougane ba mu yëkkatee kàddu yi man sama xel si moom la dem dëgg la te tamit fen baaxul moom moo def loolu moo tax ñu ne ko da mën a fen mais tudul tur. mais ñaar yëpp baaxul. waaw man mooy ban. sàcc beeg kii bi yëpp baaxul. parce que sàcc tamit tas yaakaar la de. waaw sàcc baaxul mais fen loolu dafa araam ñaar yi benn baaxu si mais mom buñ démé ba né dafa mëna fën té te tudd ñu turam mais xam nga wax dinañ wax wax ji nga xam ne wax ji ya ko mom té ñu bañ tuddu sa tour hmm. lolo ko dal mais nak tay lu way wax bugan togn ko ndax tuddul Ousmane Sonko té né fën baaxul hmm fën baaxul yow xam nga né fën fën baaxul hmm baaxul fën mom lu mu defar bis dina ñëw da koy yaq kon na nga wax dëgg mo gën mais Ousmane tegagul table bi lo xam ne tey lu leer ci sénégalais yi loo xam ne tey ñu ko votel tey xool ko ñu bëri ñu ko àndaloon ak moom tey dañoo jommi ñuy téye seen bopp ndax usul lu mu leen waxoon ak li mu def ça fait deux yow ban nga gis président toog Sénégal fii ñuy yëkkati beneen drapo bu dul drapeau Sénégal ñoom seen guur rek la président Macky Sall ba muy nekk fii yëkkati nañ drapeau. bu bokkut ak suñu bopp. waaw loolu ñun ñëpp gis nañ ko. Hmm. ba fi Macky Sall nekkee benn drapeau fii jug mais loolu du yoon respecté sénégalais yi. waaw fii benn réew rek a fi am muy senegaal ñun ñëpp benn lañ waaw yoo xam nga bu baax lu ma la D'accord. Mhm. donc euh, yow it a euh, bëri nga ci ay morom ñi nga xamante ne bi bi bi bi bi buggaan waxee euh, seen xel demul président parti passé, Ousmane Sonko li waral vous avez vos raisons yéen a a xam lu tax wax ji mais ñi nga ne nañu ak moom toog nañ ci ay ni wax ji am